tëngërëm lañ leen di wax sa su nek rek ni fo site internet di bus mtv Senegal, bu leen fatte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw ci seen i xibaar jaajëfal nañu leen bu baax ci and bi ngeen and ak seen site internet bi di bus mtv Senegal, gën fess ci bop xabar yi nak dañ koy do rek aéroport bi nga xamantene ne rek niki tay ji nak dañ fa ko aw accident fofu ci aéroport international bu Blaise Diagne eh, ki nga xamantene rek mom moy eh, jëwriñ bu ñu denk nak walum transport di elage malik ndjay demone fa nak di bu baax anam bi nga xamante ne rek moom la ñooñu accidenté waaye nag daal di seet seen wér yaramam naan sax mbir mu nu mel nag mi ngi daal di xew niki démb ginnaaw bu une heure du matin jotee ba tegal fukki minutes ak ñeent foofa ci aéroport international bu Blaise Diagne fukki doomu aadama rek jot nañ ca jëlee nag ay gaañu gaañu yu métti ba nga xamante ne rek daal nañ leen rawale ki nga xamante ne rek moom mooy jëwriñ bu ñu denk nag wàllu transport ma ngay wéy rek dalal xel nit ñi nag lépp luy mesure rek dinañu ko jël ngir mbir mu nu mel nag nag bañ fa amati di cap bi nga xamante ne moom la El Hadj Malick Ndiaye eh, daal di eh, fësal ah, ba tey rek ci wàllum aéroport nag la ñuy desati ak bi nga xamante ne rek daal dinañ eh, ne rek gis nañ fa nag ab avion boo xamante ne Transair la moo fa daal di def choc ba fukk ci doomu aadama rek jëlee ci gaañu gaañu jëriñ bi nga xamante ne rek moom la ñu dénk nag wàll boobu ak autorité aéroport yi moom ci jëmmi boppam rek jot na dem saafu wante ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu rawatina nag nga xamante ne yóbbu nañ leen ci hôtel ba rek ngir ñu mën fa noppalu ki nga xamante ne mooy directeur bu yees bi di Cheikh Bamba Dièye nag jot na mobiliser ay équipe ngir fekkee nag ak assister lépp loo xamante ne rek dafa ñeel seen i bëgg-bëgg ginaaw bu ñu gisee ni rek dañoo daal di rek daf ab choc rawatina nag yóbbu na fa dund ak lekk ak naan boo xamante ne rek ñu fa nekk dinañu ko mën a jëfandikoo moom ci jëmi boppam rek pare na pour jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy passager yi ñu fàttali nag aéroport bi ci jëmi boppam ab système exploitation opérationnel bo xamantene rek dinañu ko effectuer jarale ko nak ci compagnie nationale yek internationale jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu len faté abonné bés cloche de notification yi ngir mën am yeneen xibaar